mais président bu naan li fi amoon démb bi mu jàkkaarloo xale yi li fi amoon dootu fi am. ah dootu fi am ci lan lay compter. ah non bu fekkee ne ñi fi nekk mënuñu ci ñan lay compter. ci ku mel ni man parce que nag. may mun a li fi amoon dootu fi am de. yow fii waxoo wax ji de. may mun a. kii waxul wax ji. non may mun a. non parce que ci ñu mel ni yow la war a compter. non ma ne. da ngay ñëwaat ci gouvernement. non dootul affaire gouvernement. ah ok ñëw waatuma sax mais li fi amoon li fi amoon. ah may mun a dootu fa amati. mais ci fan la ci fan lay ah, compter. fan lay naka. bu fekkee ne yow nee nga ñi fi nekk mënuñu. Ah. moom président nee na ku foog ne état dafa faible ndax sa bopp. waaw li fi amoon dootu fi am. wallaahi ci la koy wee. wallaahi laa ilaaha bu yàlla mayul la nangu woon dootu fi amati. mais ci ñan lay compter. ci man les hommes. man yow Mame mbay Niang man waaw mais ci ban fànn waaw man seeni moroom defoon nañ ko fi man ma taxaw ni du fi am te bu ma daan wax du fi am yow danga daan taxaw dootu fi amati <laughs> may mun a. mu ne jël à témoin la. ah laay wax. mu ngi jël à <laughs> laay wax li may wax am na wala amul dootu fi amati ku foog ni que dina fi amaat. dangay nax sa bopp ku ko fi bëgg a defaat. wool ña nga yaakaaroon taxaw. waxi politique ngeen di wax waxuma waxi politique man duma dugg ci ay waxi politique kenn xamewu ma ci wax ay waxi kasaw kasaw. ki tax loolu yëpp am di barki démb wax na nee na. Ah. bu ñu fàttee objectif bi. Hmm. bu ñu nangu ñu divertir leen. Hmm. ñoom fi ñu bëgg a jëm dinañu fa jëm. li ñu bëgg a dérouler dinañu ko dérouler. Ousmane Sonko deuxième vague bi lay tontu. voilà déglu ma déglu ma xaaral may ma ma je suis pas encore passionné et je ne veux pas être passionné on de façon responsable lucide wax ji ay kilifa diine dañ ci wax ay nit intervenir ci ay bakkan rot ci. méttiwul na ko. ma ni ay bakkan rot ci fukki nit ak ñett. fukki nit ak ñeent gaañu ci loolu mooy wax ci tegu ci ay wax kasaw kasaw tant que nit ñi sàmmoon nañ li ñu wax parce que ay man dama fekke foofu mën naa wax ne que chef de cabinet bi mooy wax ay kilifa diine yónnee am sabab ci réew mi am mbabat ci réew mi am njàqare ci réew mi peut-être di ñaawlu ni yëf yi nar a doxe président am obligation déglu ñëpp mu déglu leen ñu wax lii am bi muy am dafa am ñu nekkoon ñu waroon ñoo xam ni liñ leen sas mooy et ñu faire face à ces situations laa ñoom lañ ko sas ñoom ñoo war a njëkk a taxaw ndax def nañ seen liggéey wala defuñu seen liggéey man jàpp naa ni defuñu ko man Mame Mbaye Niang waxuma lu keneen xalaat de jàpp naa ni defuñu ko pour deux raisons mas naa nekk ci gouvernement lu mel nii mas na fay am te bu masaan a am ni yëf daan tëdde tëddeewu ko. waaw ah oui de mais boo nee ci yow lay compter ban fànn. man waxuma ci man lay compter dama ni ci ñi muy compter ci mel ni yow ma ni ci muy compter man nee naa la ci laa bokk. mais défiance bi c'est sécuritaire wala politique. waaw xaaral dinañ ci egg xaaral rek li am man doonuma ci woon waxaat doonuma ci woon dugg parce que option boobu laa joloon ni duma ci wax parce que am na ñu ñu ci war a wax ba bi mu waxaatee démb gis nga du ñu naxante nañu waxante dëgg. ñun duñ ay dof nañu respecté senegale yi nañu nawlonte et bu ñu yàpp kenn et nit mayu fi daraja yàlla mooy joxe daraja mais yàlla joxagul daraja nit ku weesu nitu diine ak nitu yaakaar ba mu yaakaar ne ko war naa mën a tegu ci kaw nit ñi lii Ousmane ko di def yabaate la xamadi la tegu ko ci dëgg ci ay waxul dëgg ci tooñ ci jubadi ak ci ñàkk mandute la ko teg. c'est fort c'est grave. ah c'est pas fort. <laughs> les mots pas... sont forts non c'est pas encore fort. c'est c'est mani. il est dans son rôle hein. waaw mais qui ne s'oppose pas.